asalaamaaleykum chers internautes Sénégal yéen ñi nga xamante ne yéen ñu taamu duñu suivre suñu plateforme yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal te leen ñaanal kenn dal ak jàmm ñu ñëw ci jëye ya nga xamante ne moo am fële ca Bakel ñu koy woowee catastrophe naturelle catastrophe naturelle nag boo ko déggee mooy loo xamante ne dogalub yàlla da koo ëmb kii di Walf Quotidien di ñu ci ñëwal di ñu xamal ca Bakel inondation ya nga xamante ne am na fa li ko waral mooy dex ba nga xamante ne daa tàllalu rek ànd ak ndox ma rek utali dëkk ba maanaam wéyale dëkk ba feesal ko ba mu fees dell di Walf Quotidien di titre inondation détresse à Bakel Bakel di ñu xamal ne ubbi tey jàngi tey moom buñ ko waxee ci Sénégal foofu noonu mënatula nekk ndax ay école la ñu def ko ay abri maanaam def ko ay dëkkuwaay ñu desandi ba léegi ci Walf Quotidien fekk fa kii di Anta Babacar Ngom muy ŋaañi maanaam désiré xottati xotteet li nga xamante ne moom mooy référentiel Sénégal 2050 bi nga xam ne kii di Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko di premier ministre am ñu ngi ko doon présenté Sénégalais yi fële jam ñaajo kii di Anta di wax ne yëpp ndax lii kase ci la ñu ñëwee ci grand panel mu ñuy dikkal situation économique politique bu Sénégal comme déclaration dafa xew mu ñuy xamal ne kii di Amadou Ba nekkoon ancien premier ministre bu Sénégal nee na Amadou Ba va bientôt s'adresser à la nation lan la nara wax na dafa nara indi ay éclairage maanaam ay leeraange ci li nga xamante ne moom la Ousmane Sonko waxal nguuram gi mu jiite woon waaye nag balaa boobu ki nga xamante ne moom mooy mentoram ex mentoram di Macky Sall ratewul Ousmane Sonko maanaam bàyyilu ko dara ma ngay ñëw ci les échos di wax ne manipulation des chiffres de finances fanam yële weesu kii di Macky Sall di ñëw di wax ne loolu neenooy nga xamante ne ministre bi di Ousmane Sonko moom la wax dara du ci dëgg les échos di titre Macky écrase Ousmane Sonko ki nga xamante moom mooy tribune yéen a ba muy génn Sénégal di bàyyee Sénégal ñi nga xamante ñoom ñooy nguur gu bees gi tous les indicateurs étaient au maanaam lépp a ngi doon majji majji te nee lépp loo xamante tey ji weddi nañ ko résultat yi mu am ci investissement yi wane na ko ndax tungu ne du teew ñuy nataal ku gis dëkk bi xam ne moom mii liggéey na ko ci noonu la ñu ñëwee ci point actu muy titre Macky contredit Sonko waaye Macky Sall fay xamal ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi bees gi mu ngi leen di xamal naa leen il faut pas confondre maanaam bu leen jaawale bu leen jaawale li nga xamante ne moom mooy emprunté pour financer développement et parler de surendettement ñu ñëw ci source a muy ñëw ci même tempo di wax ne wàccaaca koñ korom ak waaye ki nga xamante ne moom mooy wàccaaca jaar fi yoon ba jàll nee na xamante ne ñoo fiy doog a ñëw te amuñu expérience bu ñu lëre seen bopp maanaam bu ñu seen bopp il ne faut pas se mettre dans la tête qu'on peut se développer sans dette maanaam Sénégal gi kenn mënu koo doxal te amuloo ay bor kon nag Olof Njaay nee na ku la jiitu ci lëndam moo la mën a wax fan ngay toogee kii di l'info quotidien di ñëw ci retour précoce dans le combat politique di titre Macky rompe la tradition bu ñuy xamal ne président yi nga xamante ne nekkoon nañ fi jaar Sénégal commencé ci Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade képp ku bàyyi nguur gi ñu ci doon nemmeeku mooy dangay dem lépp lu ñuy waxati waxu politique da nga ciy sori bu fekkente ne kii nii lay wadd desoon na ci langue politique yi tamit lii di retour Macky Sall dafa nekk loo xamante ne dafa gën a gaaw gën a fes di l'info quotidien di ñu xamal ne cette a décidé de s'impliquer dans la vie politique quotidienne en dirigeant une liste aux législatives et en tirant sur les nouvelles autorités ñëw ci li nga xamante ne moom mooy l'informateur yéene kay fasal li nga xamante ne moom mooy nataalub Macky Sall di ñu xamal profiter une majorité toute puissante qui pourrait être tentée de mener le pays sur une mauvaise voie ci noonu la ñuy desee ci l'observateur mu ñu ñëwal ba léegi ci débordement du fleuve Sénégal di ñu xamal ne Podor ak Saint-Louis ñoom ñëpp ñu ngi sous la menace du barrage waaye ki nga xamante ne moom mooy l'OMVS ngay teg maanaam ma ngay tëral ab plan boo xamante ne ñi nga xam ne ñoom ñoo loru si mbënd boobu ñu mën leen a ñu ngi xamal ne téeméer ci ay place amal ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy l'observateur ñu ñëw ba léegi ci li nga xamante ne moom mooy descente aux enfers bu Ndella Madior Diouf les misères d'une vie carcérale ñu ñu xamal ne depuis ba ñu boucler lii di dossier ba léegi ci ma ngay xaar xaar bu yàgg boo xamante ne na ci moom loolu lool ci noonu la ñu ñëwee ci li nga xamante ne moom mooy direct news mu ñuy titre la bataille de Podor n'aura maanaam képp ku doon xaar ñaan ñi lang ak ak ma nga nekk tête de liste départementale bu Podor ci coalition Takku Wallu nga xamante ne moom mooy Cheikh Omar Anne nekk ca liste nationale jàmm ak njëriñ ba pare féete fa ca troisième place mu nekk ab information yoo xamante ay adversaire am ñoo ko wax ñenn ñi di ci samp laaj di wax ne voulait-il éviter de se frotter à Abdoulaye Daouda Diallo au niveau de Podor maanaam choix bi nga xamante ne moom la def na nekkul loo xamante ne stratégie politique la ndax ñemewul jàkkaarloo kii di Abdoulaye Daouda Diallo mi nga xamante ne ñenn ñi ne neen moom moom Podor ñu des ba léegi ci élection pencum ndaw réew mi kii di la Soleil yéen a kaay di ñu ci assemblée nationale du titre ce qui fait courir maanaam ñi nga xamante ne ñoom la ñu war a tabb fal leen ci pencum ndaw réew bi lan moo leen jaral daw bay daanu ndax lan lañ bëgg pouvoir la ñu bëgg wala dañoo am yéene rek liggéeyal dëkk bi en tout cas lu ci di nekk jaral na leen lu nekk te doy na waar ndax bu ñu gisee tey ji ay relation yoo xamante ne ay bañu démb lañ woon di bëgg tey ak ay soppe démb di bañu tey mu doon loo xamante ne dañuy jaaxal trop mais lu ci mënti nekk rek nañu xam ne Sénégal benn bopp la te kenn mënu koo xar ñaar ci noonu lañ leen di tàggoo yéen ñi safoo wax à la présentation Fambaye Ndiaye Badiane Abdou Khadir Diouf le grand technicien jërëjëf ñu yendoog jàmm